maaliya cheikh sëriñ cheikh Aziz Mbacke mumasili cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu cheikh Sidi Mokhtar xalifatu cheikh Mouhamadul Lamine maaliya cheikh Mouhamadul Bachir ibnu sëriñ Xaadim Awaba munazimi haadal yowmi thaqaafi li cheikh Mouhamadul Lamine Baara incha allah asxaab alfadila mumathili turuq suufiya assaadatul kiram innahu la min dawaa'i almasarra an atawalla hadihi alkalima bismi usrati sëriñ seex coro wa fi muqaddimatiha sëriñ xaadim mbàkke xalifatu sëriñ seex coro li uxaawil altaabira an alfaraxi alkabir alladi yaxmuru alusra bi taxsiisi jaddayna sëriñ seex coro wa sëriñ balla coro hada alyowm althaqaafi haadayni aljadayni alladayni karasa xayaatahuma fi xidmati alislaam walmuslimin wa fi xidmati cheikh alqadim fi risalatihi altajdidiya wa qad samaxa lana hada tashrif wa hada takrim muraajaata xayaati sëriñ Seex Coro wa sëriñ Balla Coro xilaal nadawaati alcilmiya allati busat fi jamii alqanawaati télévisionniyati alwataniya ولا شك أن ذلك سيوفر قدوة حسنة للجيل الساعد الذي في أمس الحاجة إلى قدوات في مجالات متعددة في الوقت الذي تتجاذبهم أمواج الانحراف والانحلال هذا وترفع الأسرة أسماء آيات التهاني والشكر إلى الشيخ محمد البشير ابن سليم خادم أوبا منظم هذا اليوم الثقافي للشيخ محمد لمن بارك الحضور الكريم إن هذا اليوم الثقافي الميمون لفرصة صانحة لمراجعة حياة جدنا الشيخ محمد لمن بارا التي كانت مليئة بالمآثر والأمجاد إنها حياة متعددة الأبعاد حيث لا يمكن إحاطتها في يوم واحد أو في شهر بل تستغرق أحقابا عديدة إخوة الكرام inna hada alyawma la fursatun li tajdidi awaasir al uxuwati wal mahabati allati tarbitu bayna usrati sëriñ Cheikh Thioro wa Cheikh Mouhamed Lamine Bara tilka al alaqat allati kaanat tayibatan lan yansaha taariq wa ma zalat muxalladatan fi sijil al umma lidalika aqul li Cheikh Mouhamed al Bachir ibnu sëriñ Xaadim Awba shukran laka shukran laka ala hadihi al mubadarati tayiba waahan li mislika waahan li hadihi al aamaali al jalila allati taquumu biha xaqan innaka asadun asadun fi sajaati asadun fi ljidd asadun fi lkaram anta xaqan asadu lamin kathara allahu amsalaka saddada allahu xutaaka xayaaka allah wa bayaaka wa axiran nataqaddam bi jazili shukri ila almuridin atbaa'i ali sëriñ Seex Coro bi juhudihimul jabbaar li injaay hadihi almunasaba kama naskuru aydan usrata sëriñ Balla Coro wa kadalika nu xas shukra wa taqdira aydan ila usrati sëriñ Mbàkke Buso wa ila jamii al-ixwa aadahu llahu alayna awaaman adida assalaamu aleykum wa rahmatullah sëriñ Bass ngir tënk ci ñetti kàddu rek kàddu kër sëriñ Seex Coro maa ngi tàmbalee nuyoo bi ci Cheikh Mouhamadinil Muntaqa di ñaan mu yàgg fi te wér damay tënk maa ngi yëkkati kàddu cant ak kàddu ngërëm di ko jëmmale ci yow sëriñ Bass ci initiative bii nga def muy cérele Serigne Cheikh Thioro ak Serigne Balla Thioro cër bii nga leen cérele ku ne xam na ne semaines yi jàll yëpp rajo yeeg télévision yi ci Serigne Cheikh Thioro ak Serigne Balla Thioro la ñuy waxtaane loolu nag initiative bu am solo la ndax ñoo ngi ci jamono yoo xam ne ñu baree bari ñu ngi jàmbat crise des valeurs di jàmbat ndaw ñi ñàkk guñ ñàkk ay royukaay waaye sa liggéey bi tax na ñu gën a xam sunu mag ñi ñu gën a am royukaay yoo xam ne dinañ mën a teg dinañ leen mën a teg suñu kanam ngeen mën a roy ñoom kon nag Serigne Bass jërëjëf noo ngi sant mbokk yëpp Serigne Bass damay wax ne anta asadun gaynde ga ndax ku la seen dalay ragal ndax xëyba bi yàlla def ci yow waaye nag ku jaxasoog yow dalay bëgg ndax nit ku baax nga nit ku tabe nga Serigne Bass quelle générosité Serigne Bass quelle générosité ku la gis énergie bi ngay dépassé ci sa bi xam ne jàmbaar nga sëñ Bass yàlla nga yàlla nga fi yàgg te wér sëñ Bas guddal fan sëñ Bas waa kër gi yëpp sant nañ la gërëm nañ la ilal amaam bala maa daane kàddu gi nag fawma ma yëkkati ci tuuru famille bi ak cant jëmale ko ci sunu ndaw li nga xam ne moo ci teewaloon ci comité d'organisation bi muy sëriñ Jiili Mbàkke mu sëriñ Xaadim mu sëriñ Mbàkke mu sëriñ Cheikh Thioro mi nga xam ne mooy xalifa bi mbokk yëpp ñu ngi sant sëriñ jiili ci taxawaay bi sëriñ Bass dañoo bëgg ànd ak yow bis bi saa su ne moo tax ñu ñu lay proposé sëñ Jili moomu na bokk ci comité d'organisation bi doon membre permanant at mu jot mu ànd kook yow teewal fi kër gi waaye teewal fam bi ndax bokk na ci cër cër bi cëram la